maaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel bu baax di leen balu àq ci weeru màgg wi ñu nekk di shahru ramadan al mubarak eh, tey nag ñu ngi fii ci Touba Ndindi kër Serigne Cheikh Awa Balla moom Cheikh Mahmadul Fadal eh, daayira muqaddamatul xidma bi nekk ci jumaay Touba ak liggéey bi nga xam ne baaxoo na ko amal ci weeru koor wi tey ñu déplacé wu ñëw fii niñ ko baaxoo defee Serigne Cheikh Awa Balla mu Cheikh Amadou nag mun naa wax ne kenn la ci mu Muxaddamatul Xidma ab acteur la ci kuy jàppale daayira bi la ngir liggéeyu maamam bi nga xam ne boroom bëggutoon mu laal suuf ne woon na ku ci feeñ feeñ ba faw ku ci nëbb nëbb ba faw muy liggéeyub jumaay tuuba jamono bu ne mi ngi xool lu jekk ak lu yell ci jumaa ji ak luy tax liggéey bi mën a woyof mën a yéwén loola mu ci dox ci biir réew mi ak bitim réew yépp ngir daayira Muxaddamatul Xidma man koo defee ni mu ko bëggee kon ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér euh, ñu ngi ci weeru koor wi nag tey di alxamis dëppoo ak ñaar fukki fan ak ñaari ci weeru koor wi dëppoo itam ak guddi gi xam ne ci lañ jëm muy laylatul qadr di 13 avril. xam ne liggéey bi nga xam ne moom la euh, daayira Muxaddamatul Xidma daan def ci biir koor gi te mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo ko initié ay xalaatam. ay xalaatam la mook ay bokkam euh, moom itam mu yàgg koo def lu jiit daari mu xaddamatul ma di ko def mu daan ko def ci këram di waajal ay ndogu ci biir këram dem ba xalaat ne nag loolu war naa gën a mën a yaatu war naa mën a dem nag ci barab bu tedd bee di jumaay Tuuba euh, ci ay xalaatam la bokk waaye boobu ba léegi nag mu jëfam di bi ci biir liggéey bi yamut ci loolu waaye day am bis boo xamante ni ci biir weeru koor wi daf koy jagoo nga xam ne li liñ ci li ci war a dem lépp moom moo koy euh, faggu ànd ko mbokki taalibe yi loolu di liggéey bu am solo waaye itam li ci gën a amati solo nag mooy déplacé gi nga xamante ni nag Euh, déplacé nañ ko nag équipe bi nga xam ne ñooy waajal xéewal yooyu andi ko fii ci Touba Ndindi ci këram gi ngir waajale ko fi loolu itam du lu am solo loo xamante ni yaakaar nañ ne mën nañ ne barkeb jumaa ja mooy mooy mooy mooy déplacé wu rek ñëw fii ci Touba Ndindi kon tey gis ngeen image noonu ni ngeen ko gisee ñu koy waajale noonu fii ci biir këram gi muy xéewal yoo xam ne yu baree baree bare la café rek waajal nañ ci lu mat ñaar fukki tarmuus ak benn te tarmuus bu nekk 40 litres lay def loolu xam ngeen ne euh, quantité bu bari la huit cent quarante litres bu dee itam lu mel ne bisaab waajal nañ ci euh, lu mat vingt deux thermos ñaar fukk ak ñaar ñaar fukk ak ñaar kon huit cent quatre vingt litres lay doon lu mel ne jinjeer waajal nañ ci huit thermos lu mel ne itam meew waajal nañ ci neuf thermos loolu di ay quantité yu bari boole kook ndox mi nga xamante ni euh, ay cent quatre vingt dix pack Euh, yu ndox ak 60 pack yu sachet yi euh, ak lu mel ne presea euh, lu mat quinze carton lépp lu aju ci li ñuy jëfandikoo ci jumaa ji rek fii lañ ko waajale ba ci mburu mi nga xam ne sax lu mat trois 3000 waajal nañ ko ci loo xamante ni moom la ñu war a jëfandikoo muy quantité bu mag kon nag du ñu ñëw ba fii nag far fekk ko fi nag fekk ko ci barab bu tedd bii nag faaw nag ñu jox ko mu yëkkati ay kàddu ay laaj yoo xamante ni war nañ ko koo laaj nag ci liggéey bi muy kàdduy soññe yoo xam ne war na ko ci yëkkati kon gannaaw bi ñu la nuyoo sëriñ bi di la ziar bu baax a baax di rafetlu bu baax taxawaay bi ngay def euh, te di yàlla rek di tax nga di ko def ak Cheikhul Khadim di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu nangul la ko ci barkeb sëriñ Touba te yàggal la fi lool te may la wér Euh, ñu bëggoon a xam rek sëriñ bi ay kàddu tuuti ci yoo xamante ni dafa jëm ci liggéey mu Muxaddamatul Xidma bii ak euh, taxawaay bi nga xamante ni moom la ci mbokki taalibe yi def ndax ñun kat bu fekkee dañuy liggéey te ngeen doon euh, suñuy kilifa ci liggéey bi war nañ saa yuñ dajeeg yéen wax leen coono bi nga xam ne moom la ci mbokki taalibe di soññ rawat na ñi nekk ci biir réew mi ak bitim réew bu ko defee loola ngeen jaajëfal leen ci gën gën gën leen cee soññ alhamdulilahi wa kafa wasalaatu wasalaamu ala rasulilah sayidina man alhamdulilah wala alihi wa sahbi wala salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu te ñëpp laay ñu ngi nuyu bokk yi nga àndal yëpp xam naa sa lim bi nga lim moom bi ngay lim gis naa ñoo xam ne moom nañ bégee yaakaar naa ne mbégte moom rek doon sëkk sëñ Abdou Khadre mi mbokk mbokk mi mu ñaari ñaari tur yi dafa dee war lool loo xam lay wax Abdou Khadre rek suñu fàllu moom ni ñu jàkkaarloo daal nañ li ma seen ñuy muñu rek ma xam ne ma xam moom xam naa bi bëgg nañ bëggante ak démb <coughs> kon ñaari ko di def mu mbégte rek di sant nag bu baax a baax ci eh, jotaay bi mel nii ndax li may wax toujours rek eh, jumaa ja la boo xam ne ni ko waxee léegi li nga jeexale sa sa kàddu la sëriñ mag bi waxoon rek ma déggoo ci làmmiñ sëriñ Fàllu ci band mu wax ne dañoo waxoon ne dem leen ku ñëw fekk leen ci ku dem bàyyi leen ci ku ci feeñ da nga feeñ ba faaw ma gis tamit ñi nga xam ne wóotu nañu ko ñu mag ña doon xentewoo loolu daanaka ku fi nekk rek bëgg nga jumaa yi nga def loo xam ne lii mu nekk si mandarga ci yow ma ne kon kat ñun ñun ñun ñi nga xam ne ñu amuñu doole def lu mel ne lañ def ñun kon nañ ànd def loo xam ne lii kat ba léegi bu ñu wanee ñu wane kat ñun gone ñoo ko defoon ba fekk ñu mel lu mat lu mat lu mag def luñ tolloon rek ci loolu nag jàpp naa ne nii ngeen def mooy Ramadan li ci sama borom déyal ku dogal kenn kenn la wax ak la fay daje ci booloo ak la nga xam ne xew na ci ay xew-xew ba ñuy tàmbali loolu lépp ñu ko booy de da mën a wóotu la ma ngi nekkoon ñoo ci yoon wa kon yàlla na saa bu àggale muy liggéey boo xam ne liggéey bu bu am solo la damay da damay wax ne damay wax ne da ko nangu liggéey bu Serigne Touba nangu nag boo mën teg loxo bu wér a wér moom ndax dama cee gis toujours dama ko nettali nag te dama ko bàyyi di ko nettali mooy sunu mbokk yi Italie yi ba ñu tàmbali lii ndax nettali gi dana bàyyi xel dana bàyyiloo xel ñu bëree bëri ñu xam ne man liggéey bu ma wér ni sama borom nangu na ko euh, fañ toog ci Italie maag ay bokk ñoo toog di ay ndaw ma leen fekk booba yaakaar naa ne bii tàmbali suñ kàbb faal ma ñu doon jox kopp yeeg kii ma dem Italie toog fa ci benn kër Sëñ Tuubaa ko ci Berisiya ñu indi fa ay ay naan ma gis rafet lool seen xel ne yara ci fii man waaye ñu tax ñun duñ mën a fexe ba kopp yi jóge fii dem fa di wax ak ña ma toogaloon ci yi ak waa Mbusoo ñoo ci yëpp ne leen day may waxtu noonu may waxtu noonu rek di waxtu bëggoon rek ñu dégg ma mu ne ay kopp yi ku mën fexe ba mu dem Tuubaa am ñu ne ah mën a nekk de lii de moom si bu moom xam ni ñuy waxee yoon mu rek bu sëñ bi waxee moom ñëpp ne waaw léegi waa jooju mooy mooy waaye suñu Tuubaa rek kenn opposé wut ñëpp dañ naa ah, lii de moom moo nangam nangam benn doomu si mu faraxar yi doom si mus si mu doomu si mbas mu si faraxar yi moo génne fukki fu juróom fukki euro ne ma mbàkk bàyyi maa ngi maa ngi maa ngi tàmbalee lii man man ah kon ko lii yoon tàmbali na ñu si def joxe ñu joxe ba fi ñu toog fi am nañ deux cent soixante euros ma ne kat man du ko yor daal di woo Xaadim Mbay jàmbaar si loolu ndeysaan xaar daal xaar mu nga ah, ñii kat mbokk yi kat dañoo dajale man deux cent soixante euros yi leen bëgg nag ñu indi ñu indi ko jënd ci kopp di ko yóbbu ci jumaa ja daan na waa baax na ma fa léegi comme ren moom mag góor gi li des matul fukki fan juróom day xat pour ñu mën a am kopp yi dégg li ma a baax point bu am solo boobu xat si xel daan na waa baax na suñu xaar ne baax na daa dugg ci biir moom daa def ay majuraatam moom daal di farlu ci loolu daal. mbokk ma mu faatu woon nangam Diop Diop bukki Diop Blay Diop yaakaar tudd moom bekk day yóbbu ko ati ko ay conteneurs suñu xarit mu laaj ko ne ko Ibra Diop suñu xarit mu laaj ko ne ko euh, kañ nga yóbbu conteneur mu ne ko fekk 15 jours booba koor gi kon léegi kon ci biir koog la agsi si xëy na waa ñu day am na ku yóbbu ko ne waaye dañ ko laaj mu ne 15 jours yóbbu. waaw donc rawul léegi moom nañ bàyyi ba déwén rek ñun ñu fexe programme ak tamit sax na loolu sax rek biñ bi ñu waxee loolu sëñ Ibrahima daal di waar suñu xaadim ne ko suñu xaadim ñaata kopp ngeen soxla ñaata kopp ngeen soxla suñu xaadim daal mooy ne ma ñaata kopp soxla maa da woo suñu abdulaat mu talib suñu mu talib daa ko laaj mu toog te xaar ma wala daal di woo laajte xam naa laaj leen ngeen ne ko ñu ngi soxla soixante mille kopp boobu soixante mille soxloon rek la woon xaadim wax ko Ibra Diop si Ibra daal di ne ko xaaral ma xool xool sample mi def Ibra dem ca këram laajte ana kopp yi fi ñëwoon daaw ndax jeexoon na ñu ne ko des na fi de mu ne ko ñëw ñaar ñaar carton fi des bi Ibra wane carton yi mu des soixante dix carton te carte nekk dix mille lay def mu des mu nekk mu nekk soixante dix mille léegi ëpp na soixante mille soxla woon mu ne suñu xaadim yaakaar naa ci xewal ndax soixante dix mille leen ko foofa kon man dinaa dee mille yi dix mille yi ci des. ngeen am soixante-dix waaye day transport ba ma jaaxal fii fii ni ma ko raw moom fii la suñu tubaab feeñee dëkk moom transport ba ma woo ba bari woo belat daan ko ah, am nañ kopp yi am nañ ci yaakaar ndax mi ngi Dakar waaye transport ba ñu jaaxal maa ne na fi dem bu jël oto mu xat jëm Dakar ma xaaral bo moo ma ko jiiri ma nekk mu ne maa ngi Dakar ma ko oto bu fay ko fay taxawal fi nga taxaw taxawal fi nga taxaw bu ko poussé mu ne bàyyi ma ko dee bul poussé taxawal foofu nga taxaw waaw maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi baat tubaab la ma wax maa ngi tubaab la ma wax nii ma ne ko bul oto fay ko freinel mu war a fay ma ne ko bu taxawaat benn puno bu mu ñu ko tuwaat fa fayal mu fay ma ne ko xaar ma ngi lay waat daal di woo daal di woo suñu xaarim xaarim woo Ibra Diop Ibra Diop ne ko mi ngi buntu Pikine boo ñëw buntu Pikine rek ci foofu xurnaar am na benn magasin bu jàkkaarloog fay jaay mobile yi fa la nekk magasin bi doo xool ñu bind ci xaw ma lan maa ne ko baax daal woo ji ne ne ko affaire baa ngi buntu Pikine mu ne maa ngi buntu Pikine di xool si tubaab mi def ma ne ko am na benn magasin bu ñuy wax nangam mu ne moom la jàkkaarloo Fass Ndiaye nii moom lu doy waar loo xam ni kenn mënu ko net li man mu nekk ma teg sëñ moom. ci minute euh, une temps la une temps li lépp deux deux temps la mu ne magasin bay nii ma loolu moom oto beeg kii bi ñoo tolloo Dakar fa la taxaw dégg nga mu daal ne ma ne ko léegi coppite nga foofu jël ko. ba nañu daal di jóge ñun ci jotaay bi nga doon xalaatee wala ANACIM COP yaa ngi Touba bi ma ci jili woon naan ma accident Touba COP yaa ngi Touba boobu ñu ñoo ngi toog jotaay bi jóguñ lu suñ Touba nangalu sëñ bi moom amu ci mu amu ci lu wax moom amu ci lu may ndetale ñu tàmbali loolu at ma jot ñu indi ba léegi ñu ngi ci yaakaar ne cent vingt cent vingt cinq mille COP la ñu indi leen yàlla dogal bi ma demee Brescia ñu ko am loolu ba sëñ bi Jóob noppalu ma dem Rimini seen bis boobu ñu doon Cheikh Saliou ma tarfa fa Euh, kii bi mbir mi daan leen kat ah lii xew na Bérésia te kii ko daan indi booba daam lay moo yoroon loolu moo daan indi napp yi laa ko waxoon ma ko yi suñu daam di napp yi bu ñuy jox ma may indi leen may leen ni na te kat bokk yi dañoo war a kii li ci gën a kii mooy waa Bérésia léegi jamee bi léegi bu njëkk ay benn benn la woon léegi jamee daal Bérésia bu ñoo ko jël assaas léegi nga moom luy continuer leen kon léegi kon moom jeex na léegi nag waa Rimini daan ñoo tamit dañuy dañuy indi ma leen defal defal ko benn waaye comme dañoo soree mënuñoo jokkalante bi ñoom daaw ñu indi ñu indi ba yaakaar naa ne daaw yaakaar naa ne kopp yi moom dem ba gàmm ko ndax indi fi deux cent cinquante mille kopp ma leen nag lu ëpp kon nañ fexe ba ngeen def dara yàlla dogal ñu ne ma kon dañ xool luñ man ren bi ma waaye see daam lay woo ma téléphone ne ma ah ñun ko daje nañ waaye jàpp nañ ne dañ mën a yëngu suukar si man ko lu ngeen man def leen lu ngeen man wax du doseer def leen lu ngeen man ñu ne koy lu mu lu ñuy def nañ tàmbali rek yaakaar na indi nañ une tonne deux tonnes cinq cent indi nañ ko ren te nee nañ ab tàmbali la parce que ñu yéene loolu nag maa ngi soññ murit yëpp du ma Italie doo koy def Angleterre dem naa fan yi ña ngay waaj ñoom la ñu waaj ñoom dama leen bu nga waajee ba ba jekk ngeen wax ma laaj leen ma laaj waa ma xat mi xit ma lu ñu jàpp ne danañ ci mën a duggee ñu dugg ca dañuy wax tamit ne ndog yi dong taxul ñuy wax ndog yi ab cër la ci ci ci ci ci Moukhaddamatoul Khidma liggéey bi waaye yu bëri la donte am na bokk taal bi xam ne ña nga Espagne ña ca lay fomp mokkat yi am ñoo xam ne ngay ña ngay lépp lépp ci liggéey bi rek la yaakaar naa bokki waa Afrique yi ñu naan indi kawas yi ñu naan indi di ko di sol li naa bañ koy li ñu xam naa gëj gëj gi ak gëj gu am ku ci wax moo tax mu gëj waaye daan def sama sànneem jox ma juróom fukki kii peer ma indi ñuy sol waaye leen wax rek ni mooy du mbirum Seexu bala du mbirum Sëñ Ablaay Jóob du mbirum Sëñ Fallu suñu du kenn mbirum Sëñ Tuubaa la te euh, man euh, li ma ci am ci euh, gis-gis te teg sama bët nekk mu ñu lu ñu mën a làmb ci loxo mooy li ma nettali fii léegi rek looy mébét jàpp na déwén la jëm yaawe la defal la ci benn saa soo xam ne si matul ñetti waxtu lépp fekk la foofu moom liggéey bu ñu ne moom noonee te jàpp naa ne bu ngeen xoolee ba ñu ko tàmbalee 2005 ba ba nga xam ne euh, ni nga ko ne noonu ak tey Sénégal foo dem ñu ngi koy def ci yéen ci ni ko royee kon euh, man baax la boo xam ne bi boo xam ne Touba moom la boo xam ne bi daa war di di buusu bu yàgg bàgg lépp génn ndax saa yu génn ñëpp jël ko léegi foo dem Sénégal jàkk yaa ubbeeku ñu joxe ay ndogu nangam nangam def dif dif dif loolu mbirum Sëñ Tuubaa kon mbir maa ngi noonu ñu jàppoon ci wàll gee nañ continuer xam ne wàll googu dund gu wéy la. ndax liggéey boo xam ne bi da nga koy denc rek moom te boo demee fekk fa lu ëpp la nga defoon da ngaa war a farlu boo demee lu fekk te xam ne nu ngoog ñu jàpp ci mbirum ndog yi nañ nañ dogu te xam ne fañ jàpp tamit fañ jàpp ñu jàpp ci tàpp yaag la ci ku nekk na nga xam ne rek jumaa ji la jëm suñ boo xoon ne ku ci ku ci feeñ danga nga feeñ baaw faw kon liggéey baa ngi bokk taalibe yi ci biir Sénégal ak ci biir Sénégal benn dërëm ba nga jël def ko ngi yàlla mën naa wattu lu bëree bëree bëri xanaa mos naa fi wax ne nañ ubbi compte xanaa ubbi nañ fi xaw ma nu xaw nu mujjee nañ ubbi compte bu ñu defee léegi euh, sama masque yi dañuy taxawal dafa ñu jëm fa rek ñu yóbbaale ko fu ñu dem sànni ko foofa doon di lay def sax di ci def loo xam ne lii addiyee suñ jumaa ji yaakaar naa ne bu ko defoon tamit dana am lu ba lum jur loo xam ne lii dana baax loolu tamit xalaat boo xoon la boo xam ne bi yaakaar naa xaw ma bu nu mujj waaye suñ ko mën a yëkkatiwaat dana mën a nekk joxe ñu joxe numéro compte bi dawaaye yi xam ne ñoo nekk ci àdduna bi ñu dem ñu wax leen ko ndax am naa daayira yoo xam ne xaw nañoo sori mel ni Australie dañ may wax ne bëgg nañoo yëngu ci mbir mi waaye xam naa sori gaa tax waaye comme moisal tawaasal yi nga xam ne moom yi am léegi xam ne lekk ma ngi ci def ba am fa boo xam ne bi bu ñuy daayira sànni ca euh, seen nangam nangam seen xaalis bi tudd xam dara bu nee ba at weer wi dee ñu yónnee ko boobaa dama def dara ci màggal gi ma daal lépp leeral la yoo xam ne waaye daal liggéey la boo xam ne mag ñi lañ jëfoon des na lu bëree bëri te euh, jombuñu day wax toujours nag buñ buñ jàpp ne rek sëñ bi sëñ Tuubaa ci boppam yee nañu yee nañu yee goo xam ne ku ne ngaa war a yeewu ba ñuy wax naan bu jàpp ne ba ku ngënal yàlla ngay jël yàlla da ko jox njëkk ñi bàyyi ñu mujj ñu déedéet ñu mujj sax mën naa am ñooy ëppale ndax taw nu mu ko waxee taw taw ñebb ñebe tàmbalee waaye waame ba mooy tax nit ñi mën a bay ji kon lu mujj li kon mooy euh, nangam nangam. te yéen sax am na lu ñuy wax loo xam ju ñu nañu ko waxoon nañu ne mbir moo gis rek digg doomu ko wala boog asutaha mooy nekk la gën te ñun ñoo nekk ci tawasut yi ndax sa maam nee na suñ tubaab suñu fàll waxoon na ko ne ko yéen de ba nga sant sa borom ba nga ne ko Mbacke waaw sant nañ ko baax mu ne ndekki nga da ngeen a ëpp la niisu leen ëpp la niisu leen bu ngeen ëppoon ñëw ba dem ngeen ñëw bu ngeen gisoon simile dem ba ngeen ñëw kon ko ngeen sant yàlla ñàkk ëpp yeesu nag mooy mooy tawasut mooy yàlla kon takkoon soo daan aleykum de yàlla waxoon nañu si salaam kon soo daan mooy ngeen nekk nit ñoo xam ne ñi euh, ci digg bi ngeen nekk di nekk ay shuhada ëllëg ñun ñii nag ñooy ñi xam ne ñooy seere ëllëg la ma ngi defoon nañ fexe nag bu ñu seere bu ñu yéen bu ngeen seeree nag li ngeen def ñu ñoo defoon lii kon nag yoon waa ngi noonu kon mbokk yi maa ngi soññ ñëpp euh, di gën a ñaax ñëpp di wax ne du liggéey buy benn fan liggéey bu continuer la ma ñaan saa nag damay naa ñaan yàlla fay ñu ndax liggéey suñu tubaab moom alhamdulilah mi waaye damay ñaan yàlla xeetal ñu ci ñu mën ko def te di ko def ngir moom rek ngi saa borom luñ ci def rek xam ne dañ ko def ngir sëriñ bi rek a tax ñu def ko may sant yéen ñi nga xam ne eh, yéen a ñëw fii ni ko waxee léegi fii moom daa bokk ca jumaa ja daa bokk jumaa ja moom ma ne eh, ab cër la ci wala ab nangam nangam déedéet day nekkoon faran déedéet wala mu ne ko oddu wala déet maanaam jumaa ja la mooy lépp jumaa ja ndax euh, dañ ko waxoon ne ko ku ñëw fekk li ko dem bàyyi la ci loxo nag ku dem bàyyi ci moom kon moom dafay sax kon nañ ko dëkk fi dëkk fi fekkoon dañ nekkoon ba mu nga dem waaye dañ nekkoon nekk fi ku ñëw fekk la ci ku dem bàyyi la ci kon mooy sax fi kon euh, kon ci jumaa ji la bokk du ñu lu ñu jëf ngir ñu wax ne ñu du ñu lu ñu jëf xam nañ koy jëf ngir nit ñi xam ne jëf nañ ko déedéet dañ koy jëf ne fañ dëkk dëkk fa nga def lépp am ku baax am na wax ku nekk fa nga nekk fa nga def lépp ko waxee waaye eh, laa bëgg wax mooy ne eh, li ñu def def ngir xam ko waaye dañ koy def ngir ne fañ dëkk la ñu war na kon mooy war nit ñi leen def leen ngir ñu xam ne def ngeen. ndax nga soññaale ñay def laa bëgg wax kon mbir maa ngi noonu yenn saa borom saxal si jub def nañu taw feex yaat lool boo ñëw sëriñ bi nag bu faw te li ñu liggéey nag ñu xam ne liggéey la boo xam ne bi rek moom bu saxla rek leen sant baax nag li ñu ko waxee coono yëpp xam nañu lépp ñëpp faroon nekk ñun ñëpp faroon nekk nag gënuñu leen mënuñu leen defuñu leen waaye daa fekk ne nag ngeen gën ñoo am farlu gën ñoo am faayid rek ci loolu rek la ngeen nekk nekkal ñu foofa moo tax ñu la di sant bu baax a baax a baax tàngoor weeg coono yeeg ak saa bokk yi alhamdulilah bi ñoom ni ma xamee seen mbir ci heure bi weeru koor euh, moo alhamdulilah bi kon daal asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu. Euh, tabarkalla macha allah jërëjëf sëñ Cheikh Awa Balla moom Cheikh Abdoul Fadal yaakaar naa mbokk yi yéen dégg kàddu yu am solo yooyu nga xam ne yëkkati na ko te ku ko dégg xam ne ku maîtriser daayira Muxaddamatul Xidma la waaye tam ku yàgg yëngu ci liggéey bi la. ndax yii mu nettali rek firnde ci waaye nag suñ borom def na tawféex ba ni mu ko nettalee yëngu ci yëf yi dana dalal xel bu baax a baax ndax tawféexi Serigne Touba ji ngay dajal. Euh, dégg ngeen li mu nettali ci mbirum kopp yooyu loolu rek firnde la ci loolu itam moo indi liggéey bi fii ndax njëlbeen nga. ku ku ko fekke woon xam nam tàmbale woon boo ko gisee tey da nga gën a yéemaat sëriñ bi bu baax a baax a baax kon kàddu soññe yooyu mu yëkkati itam ak kàddu cant jëmale ko ci mbokki taalibe bi nga xam ne ñoom lañu àndal liggéey bi moo xam ñi nekk ci biir réew mi wala bitim réew ñoom it loolu tam ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax ñëpp gis nañ seen jëf moo xam ñi nekk Sénégal la moo xam ñi nekk ci ah, Afrique la euh, wala ba ci diaspora bi bitim réew ba ci Amérique euh, bàyyiwuñ fenn ni mu ko waxee itam noonu la Euh, daayira Muxaddamatul Xidma ubbi na ay buntam waaye itam gën naa yombal yëf yi euh, euh, Baye Cheikh noonu nga waxee ci mbirum compte yi daayira Muxaddamatul ma dox na ci at yii ba def ay compte bancaire yu baree bari yu wuute ba mbokki taalibe yi fi ñu nekk ci bitim réew fi mu ne tey fondation Amérique bi dañoo dañoo dañoo fexe ba wut defe ko jëflante boo xamante ni ñoom day day jóge directement ci à source seen kii dem ci dem dem ci compte bi nga xam ne ñoom itam ñu ci farlu lañ noonu itam waa Angleterre ña nga ci ma ngoog ma ngoog waaw waa ñu ngi ci waa France itam ñu ngi ci waa ñoom itam ñu ngi ci kooku waaw kon daal waaw kon daal mel na ne yëf yi euh, suñ suñ borom mi ngi ci def tawféex bu baax a baax waaw noonu nga ko mébéte woon yéenee ko ni loola jéego yooyu moom ñu ngi ciy dox bu baax a baax dina yaatu ma ngoog <laughs> waaw euh, sa sa sa sëñ bee koy wax loo am na ci waaw yow yow moom yaa ngi ci biir moom yow moom yaa yaa yaa ngi ci biir waaw kon ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax moom itam ci taxawaayam wax dëgg yàlla taxawaayam ñëpp ko ràññee jël naa ci jumaa ji rek mais ci biir murit gi yëpp ci biir murit gi yëpp ci modestem ci euh, fonk doomu aadamaam ci lépp. Euh, ñu ngi koy ñaanal bu baax suñu borom kàttanal ko itam gën koo dëgëral guddal fanam euh, yokk ay xéwalam bu baax a baax ndax xam nañ ne lu mu man rek. maamam la ko mën a Cheikhul Khadim kon ñi ngi leen di eh, eh, sant bu baax a baax euh, jërëjëf jërëjëf kon ñi ngi leen di sant bu baax a baax